jërëjëf mbokki amateurs yi jërëjëf mbokk yi nga xamante ni yéenay seetaan wasaare làmb tey ñu ngi fii ci Medina ki ñu fi woo di Assane Ndiaye njiital Baol production open press xale bi nga xamante mooy mbay guy gi mbay guy gi nag moo war a laaleeg Balla bu ñu nee Balla xel day dem ci ñaari Mame Balla yi waaye kii nag mooy Mame Balla borom top moom la mbay guy gi di laale Mbaye Gouye Gui tey di def open press mu nekk xale boo xamante ne njàmbaar daa bari ci moom jom daa bari ci moom fulla daa bari ci moom Mbaye guy gi borom repas yu bees yi wala boroom repas yu bari yi dañ koy xaar lan la fas yéene ci open press bi lu muy wax maam la su ko defee ñu xool waaye lii aadama xorom lañu teg ci suuf jël glace teg ci kaw boo gisee glace bi nag mooy jàmm lay fi moom foo gis. mooy jàmm waaye xam naa ne daal jàmm moom rek lañuy ñuy ñaan moo gën fii waaye moo gën ëllëg yoon mal xiyaam fi ñu jëm jàmm daal gisuma lu ko gën xale yaa ngi noonu ñii ñooy waa écurie Bawol fu mbay guy gi di dem moom la ñuy àndal Atou Junior a ngi noonu mbay guy gee ngi noonu di génn mu ngi noonu di génn mbay guy gee ngi nii di génn gis nga ko pareegul de ndeysaan waaye mbay gi waaye làmb gi zéro bonne presse bi mbay guy gi ngi ku ne ci làmb ndeysaan de ba bonne presse lay def ndeysaan mu ngi nii open presse bu daan dem gërëm la daan toog di def ay débat débat waaye mbay guy gi mi génn na da koy def duggaat làmb gi lii mooy li ma la doon wax léegi xale yi ñoo koy gunge ne ci ginnaawam Atou Junior a ngi noonu BMW ngi noonu ndaanaan bu mag bi ndaysaan ngay gis yeneen xale yi xoolal ma xale bi ndaysaan ndaanaan la ci làmb boo yaa ngi nii ndaysaan Adama xale bi kii dama koo ragal sanam misal mi xale boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb barki démb arène nationale bëre na fa ak petit bëre bu rëy moom nii xale la bàyyi leen ko xel ndaysaan kaay sama ñaange malaaka itam alaaji si yàq la lay jot na tugur mooy da nga koy sol gisoon nañ ko ci Eumeu Sène surtout Samba Xëyaan bi fépp fu muy dem da koy sol tey guy gi yëre bi mu sol dafa am tey lu muy wane li muy wane mooy combat moom Mame Balla am na lu mu ko jaral li muy wane mooy combat bi am na fu mu ko teg li muy wane mooy combat bi tey ji xaat la ci moom ndax combat la boo xamante bu ci jàllee mun naa yegg ci kaw fi ndaanaan yi toll parce que Mame Balla bu nee bëre naa Moussa Ndoye daan ko rek jeex na Mame Balla bu ne bëre naa Tafa Boy ah, euh, Moustapha Gueye numéro 2 daan ko jeex na Mame bu tuddee ay ndaanaan yoo xamante ni bëre naa ñoom ci làmb tey mbay guy gi bu ko jëlee bu solee yëre bi mu sol taxaw ci balcon bi di déglu xale yi nga xamante ñoo yëngal ci asiko yi jaadu na en tout cas daal lu mën a xew mooy doomu Bawol baa ngi ni doomu Medina baa ngi ni xale baa ngi noonu moo war a laaleeg Mame Balla dimanche bii ñu jëm. stade Diom Iba Mar dugg si bënn saañ ba réer lay doon mu ne ma lépp di waajal maam Balla ndeysaan ma ngay ñëw man de jàpp ne tay la xanaa lii ma gis ci xarfa xurfaa ki déeb lu muy def am na lu ko booy bi di wax xanaa ñu déglu rek mbay guy géey gi noonu gis ngeen ko lamba garaaw béjjënu kooba la yor ñu def ci xorom yéen ñi nga xamante ne yàgg ngeen a ñëw ci làmb béjjënu kooba wax leen ma gàllaaju lan la band na ñaari loxo yëpp moom mbay guy gi band na gauche band droite ndeysaan ma nga noonu kaay noonu ma ngay wis xorom bi Beer Seye doo yëngal. Seydou su ma yëngal.

Tapha Tine ndeysaan ndaanaan baa ngi noonu may leen ñu ndànk rek deet deet deet bul wax loolu ndeysaan Tapha Tine a ngi noonu diggante bu baax a baax a baax a baax te combat moom na bawol yëpp jóg daal jàppale ko si ñun ñëpp digganteem ak Boy Niang ñëpp dañ ko war a jàppale mu am ndam ah mu ngi nii yaay tey tungu ne du teew ñuy nataal waaw bu wér ah. bawol yëpp a ngi ciy jàpp tey tey tey ñu ñëw jàppale suñu frère mbay gu gi rek yàlla may ko ndam quoi noonu rek la demee quoi presse bi jeex na laa ilaaha illallah kon mbay du bàkkuwaat mbay guy gi toj na toj na ko ndeysaan waaye lii lu mu doon bàyyi leen ko mu bàkk yaatal leen ko may leen ko Babacar maa lay fay maa maa ngi sant yàlla di julli journée bi maa ngi gërëm sama ñaari waajur di ñaanal sama papa ba mu sa gënal ko fi mu jógee maa ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu di wér ak bépp kilifa diine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 may léegi ñu ñëw si combat bi te jëm ci combat boo xam ne yaakaar bi mu taxawee yaakaar naa léegi mu mat at mhm. sa digganteeg Mame Balla Mame Balla moom yaakaar naa ku ne xam na ko moo doon tamit xam na li may wax fareel noonu keneen noonu Mame Balla borom top seeg ndax mën a bëre mhm. macha allah te itam yàgg a freiné ay xale mhm. tey nga lekk avance am ngeen war a bëre dimanche la 4 may nu mu dunde boobu combat fan la ci toll actuellement comme fan néew moo des ci combat maa ngi nuyu sama mag Tapha Tine depuis may préparé ba léegi moo ngi mën ay yu laa contact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 dikkaat incha allah dama koy daan ci ama manière jël boo xam ne fecc bu bees jël bu bees di nuyu waa mafia rankang bi yëpp maa ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm ak ak waa mafia bu bi fecc bu bees jël bu bees mënul ñàkk ma ah, man dama liggéey xale laa baa gar quatre vingt laa judd chaque jour ma wax leen ko maam Balla bu arbitre soufflé mu taxaw dëggal boppam maa ngi moom duñu bëri minute incha rabbi ci kattanu yàlla bu taxawee mën naa daw nag bu dawee dana yàgg barke Serigne Bamba bu taxawee incha allahu rabi duñ bëri mi te ci kàttanu yàlla dama daan fii laa la ko waxee. da nga ko ëpp doole da nga koo dàq bëri. maa ko doole maa ko man lépp lu mu yaakaar maa ko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 maam Góor Sam maa ngi koy gërëm waa centenaire maa ngi gërëm ñëpp maas borom mëta yi maa ngi gërëm maas Malick mécanicien maa ngi koy gërëm bu baax sama doomu ndey la sama xarit la ak Malick Malick bu mbay guy gi sama mag yi ne Colobane maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal confiance bi ne ci yow di bëri mbër mel ne Mame Balla ndax wóor na di nuyu bàyyi laat sama doomu ndey Mame Balla ci kattanu yàlla bu arbitre soufflé dama koy daan incha allah na ñëw ba ñëw moom saa boo waxee mu ne mbay guy gi top 5 ki laa koy yóbbu ndax miin naa top 5. mënumaa yóbbu man xale dafa am ñu topp sama ginnaaw di ma ñaanal te yàlla tax ci kattanu yàlla bu arbitre soufflé dama koy koy daan ci kattanu yàlla. waaw incha allah waaw incha allah tey. père sama ginnaaw di ma jàppale kii père Seydou Guèye ku ne xam nga ko déggoo man kii laa am père Seydou Guèye kii laa am moo sës ci rek di ko liggéey liggéey bu rafet. yow kat doom boobu ñun ñëpp nañ suñu bët yi di leen jàppale di ñu jàppale ñun ñii di def liggéey bu rafet fii di jël ay jigéen di leen jox ay bon ñuy liggéey maa ko si fii teg ci sama bët man mu may jàppale du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu kii mu ngi jàppale ndaw yi Médina yëpp feer mais dugg ca làmb ja waaye géew ba le yaa arbitre ba ci ndam yàlla dinaa ko andi teg ko ci sama papa Seydou loxo Seydou ndax da ngay xeex wala da bëre lépp laay def damay xeex damay bëre xeex ak maam Balla wóor damay xeex damay bëre lii waa Bawal def tey ñoom ñëpp ànd nekk sa ginnaaw est-ce que du nekk pression ci yow. ak Medina man pression amatuma ko ci làmb. bëri naa 14 combats mënatuma am pression ci làmb te bu làmb jaar bi soufflé di nga xam ne mooy loolu. incha allah Seydou ginnaaw bi ñu la nuyoo di la siyaare tey ñu fekk la fi mbay guy gi lu mu wax ne Seydou Gueye sa digganteeg mbay guy gi. mais jërëjëf maa ngi kàddu kaddu bëgg nuyu champion yi fi ñëw yëpp teg ko ci loxo Tapha Tine li ñëw taaral bés bi ah loolu li muy wone mooy famille làmb ñoom ñëpp benn lañu waaye organisation bi nag tey organisation mbër xaw na jaxasoo mais noonu la noonu la mbay nag li ñuy wax ci moom mooy di kontaan ci kóllëre bi nu yàlla boole ah, foog naa ne bi mu commencé sëgg ba léegi ñu ngi ànd ak moom di sëgg su amee ndam ñu bëgg te foog naa ay ndamam ñoo ëpp ay defetal fi ñu jëm nag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 bu ñuy dellu si ñëpp kontaan Medina ñëpp ree am jàmm. Mbaye foo Mbaye ci bolog yi ndax Assane li mu bëgg mooy ku ñëw en masse jàppale ko ci bis yi foo toll ci bolog yi. loolu banaa ko ci sama loxo Papa say Gueye bu dee wàllum pied moom banaa ko ci loxoom. mu jën billet ma jox ko xale yi ñu ñëw stade feesal ko del noonu lañ ko daan defee ñaata bolok noonu lañ ko daan defee lépp noonu lañ koy defee bu nit yàlla bàyyee ñu nag duñu wax li ñuy def surprise la ci làmb ji mbay dina egsi ci làmb ji ak beneen melokaan da di ngeen xam ni waa Medina jàppale nañ ko di ngeen xam ni waa Bawol jàppale nañ ko dañu koy gërëm nag parce que dugal na fi loo xam ni dafa fekk ma fi fekk muy bëre tradition la Médina bëre tradition la Bawal doomi Bawal yi ñëw doomi Médina yi ànd ak ñoom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 waa Baol nga wax waaye waa Ngoundiane a ngi fi bare nañ fi de ah ñu ngi fi waa Réfane a ngi fi bare nañu fi nekk fii nag tey jii boo doon xayma war nga mën a jàpp lu war a mat ñaar téeméeri mbër ñu ngi dëkk medina di yeewu ak Médina bokk ak ñun ñu ànd ak ñoom ñu ànd ak ñun ñuy defar quartier bi donc fii bare cosaan la fi bu ñu ñëwee nag fekk fi cosaan dañuy dellu rek ci li Ndiaga Mbaye waxoon ne lu dagg rek morom mi lay seeti bu ñu daggee ñoom bawal wala daggee kajoor ñëw fekk waa Medina dañuy mën a ànd ñu def leen benn mu nekk soow. ñu boole yëpp naan bu soow kenn du mbay gu gi mbay ñu gis Mame la def benn sortie nee na xale ba nga xamante ne bii dafa yor biir bu rëy du ko daan loo koy wax. xale bu yor biir xale yor biir du ko daan loolu la wax.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 di gërëm maa lambaay sama doomu nday sama xarit Cheikh Diaw sama doomu ndey sama xarit Malick Balla Gaye maa ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm waa centenaire maa ngi gërëm ñëpp Mbay Jóob Mbay Nderef maa ngi lay béggee di la siyaar Maam Góor Sam maa ngi lay béggee maa ngi béggee Njaay bàmba moor Baay Faal sama doomu nday sama xarit Moussa Bëgg kër bu mot la ma maa ngi lay béggee Mor Diouf Mor Diouf aw ma sa fay yaag ñoom njàmme jëwrin Babacar bu Modou ma maa ngi gërëm ñëpp waa mafia rankang bi maa ngi bëgg ñëpp. mafia bu ko ci bañ bi maa ngi bëgg ñëpp. loolu yëpp dafa am la. Birima maa ngi koy nuyu moom Moussa bëgg di ñaanal Medina maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama rakk yi ak sama doom baa yi fi nekk maa ngi di bëgg di leen ziar di leen ñaanal. loolu yëpp loolu yëpp dafa maa ngi bëgg Baye Salkan sama doomu nday sama xarit ak Cheikh Ndiaye ak Youssou Ndiaye centenaire maay gërëm ñëpp maay wax gars yi nañ jënd billet yëpp ma jàpp waa ji. loolu yëpp sama papa sama papa Daouda Sarr jëndal billet yi ma jàpp waa ji daan ko incha allah. dama ko balaa gars yi ñëw ma feesal ko del loolu dina mais loolu yóbbante ma mbala. li ma koy yóbbante ma maa ngi lay ñaanal wér di la ñaan di ñaanal sama bopp wér di la wax na ci kàttanu yàlla incha allah rabi bu bu ci kattanu yàlla dinaa toog sa kaw mënoo ci dara incha allah.